voilà l' équipe de Kaolack l' équipe de Kaolack ngi noonu war a yëg sur la podium Adjuma Diouf a ngi naan leen fii ngeen di yëg ñu ngi sur la podium l' équipe de Kaolack à la présentation de l' équipe de Kaolack fii ci stade Mawaddu Wade Saint-Louis drapeau du chef de l' état ndeysaan l' de Kaolack l' équipe de Kaolack l' équipe yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu à la présentation de l' équipe de Kaolack ndeysaan